Dakaractu ngeen xam ne jox ngeen ay jéego yu am solo di xencu mbégum sëñ bi ci màggal gi ba ak si ci kër gi nga xam ne leen la ci këri Serigne Touba ndax boroom kër gi ëtt ëtt euh, leen la ci ëttu Serigne Touba yi muy kër Sey Laaji Bousso di kër Sey Afia Bousso bi di kër Sëñ Mbàkke Bousso waaye di kër njabootu Serigne Touba yëpp ndax Sey Laaji Sëñ Abdou Bousso mi waajuram doomi Sëñ Afia la te Sëñ Afia mooy doomi Sëñ Bousso bi te Sëñ Bousso bi Soxna Jaara te Sëñ Bousso bi moom ci li ñuy waaj dugg nii incha allah mooy màggal gi joué na ci rôle bu am solo ndax li tax yoonu murid taxaw bokkoon na ci sëriñ bi bi ko yant bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo ci li nga kaas bi mu defoon Daaru Xuddoos yant bi ne ko liggéey bi bala nga cee mën a dem faaw sama jaay ji ñaan sëñ bu soobee faaw mu génn àdduna ndax juboo naag suñu borom juboo xam ne ñaan yàlla mu euh, bëgg na la bëgg boo xam ne bu ñu la dee teg natt bu yàlla teg ko te boobaa baax nga xam ne sëñ bu soobee Sëriñ Tuubaa waxtaan ceeg moom mu nangul ko mu nangul ko wax jooju nga xam ne moo njëkk a rotal bakkanam ngir yoonu mu taxaw kon bu ñëwee ci këram ci ëttam bi ñëw nañ ci ëttu Sëriñ Tuubaa ñu ngi leen di nuyu bu baax waa 24 euh, actu ñu ngi dugg ci bis bu tedd bisu Sëriñ Tuubaa nga xam ne bi mu tàmbalee liggéey bi di lente kaaf boobu natt yi di ñëw comme nuñ koy waxee rek sa at mu ñëw natt yi day gën a ñëw ñu demee nag ba suñu borom jeexal natt yi nag mu na ko nag gis na ko tey nag fay gee ci def te at mu ñëw fay gi ñu koy gën a yokk ci la sant yàlla woote tamit ñu sant la ko ci yàlla looloo waral bis bi kon bisu màggal bisu sant yàlla rek la ñu ngi ñaan suñu borom ñu dugg jàmm te lépp luñ ci am ci lépp luñ ci def rek ñoo mën cee daje di eh, comme ni ñu ko daan waxee rek ëtt bii tamit ëttu Sëriñ Mbàkke bu solo ndax suñuy waajur wi di soxna ba doomi sëriñ Njaañ la moom suñ Mbàkke Buso te doomi sëriñ Mbàkke Buso muy sëriñ Mulaay moom la sëriñ mag bi njëkk a taxawaloo bis bu tedd bi di euh, màggal Tuuba euh, ndax sëriñ Moodu Buso moom suñ Mbàkke Buso di magam moo joxoon ab euh, gàtt sëriñ Mulaay na ko mu joxaale ko sëriñ bi addiyee ñu ko sëriñ Mulaay di nettalee ci interview ñëw ci sëñ bi sëñ bi na ko dama soppal ma ko xaaf bi mu ko soppee mu teeloo ko ba gis bi ñëw ci la na ko euh, mu def ko ñaari xaaj benn bi mu jox ko soxna Aminta buso moom it doomi sëñ bi soobu la di waajur di waajur bi mu jox ko soxna Awa Bousso moom it doomi sëñ bi soobu la di waajuru sëñ Fàllu kon màggal gi li ci njëkk a dem lépp njabootu sëñ Bousso bi la waaw ndax doomi sëñ Bàkki Bousso moo joxe addiyey gàtt bi doomi sëñ Mbàkke Bousso la ko sëñ bu mag bi taxawloo ñaari doomi Sëriñ Bousso bi di bokkoon ci kër Cheikhul Khadim kenn ki di waajuru Cheikh Mouhamadul Fadil ñu soxna Awa ki ci des di waajuru euh, Cheikh Abdoul Khadim ñu soxna ñoom la ko sëñ bi defar loolu bu ko defee ñu tawee sëñ bi wane yoon wi wane na bis bi bu ñëwatee li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem lu ci waay am rek na ko ca def ci la ci la màggal gi sosu loolu moom euh, ñun ñëpp tegoon tegoondoon nañ ci suñu bët ndax comme na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon euh, sëñ bu mag na ko pay gi chaque année rek day yokk looloo dem ba nga xam ne économie Sénégal euh, daanaka màggal la ko yokk nga xam ne bu dul doon màggal daanaka mën nañ ne daanaka lu bëree bëri bëri mën naa soxla ci économie ndax dama koy faral di nettali sax jaaykatu socc yi rek am na benn bis ku doon nettali naan am na jaaykatu socc boo xam ne dana woon li muy jaay ci màggal mën na ci dund ba màggal gi di ñëwaat waaw loolu rek dèjà misaal la ci wane màggal gi moo yore économie du Sénégal looloo tax nag euh, ñi jiite réew mi war a gën a taxaw ci dëkk bu sell bi wane na du dëkk boo xam ne dëkku sint Tuubaa rek waaye dëkk la boo xamante ne si euh, day doxal bu réew Euh, ñi ngi wax ne mooy deuxième ville euh, di euh, maanaam ci réew mu Sénégal bi ba pare li ñuy dugal ci taxe ci réew mi ginnaaw dakaar yaakaar naa ci Touba rek la ndax da gis téléphone yi rek wala conteneur yi rek bu wàccee Dakar ñëw Touba teewu ci Touba la gën yombe eh, ci Dakar ci marchandise nga xam ne waa Dakar sax dañuy ñëw Touba di jënd si marchandise kon dëkk bi dëkk boobu nag wares na ko gën a taxawaat bo bu baax nag ci lu mel na ci wàllu tëli yi ak assainissement yi ndax gis nañ ne màggalu nawet lañ nekk te jafe-jafe yi bëri na lool nit ñi buñ ñëwee daanaka ca anam bi ñuy nekkee ci dëkk bi dana xaw a metti lool kon nag euh, état mi ngi ciy góorgóorlu waaye waras naa gën a taxaw xam ne dëkk bi bokkut ak n'importe quel dëkk ndax dëkk boo xam ne day dugal économie bu rëy ci dëkk ci Sénégal waras naa gën a taxaw ci lu mel noonu en même temps ndox mi tamit manqué na loolu ren ñëpp a koy jàmbat loolu it war na ci gën a taxaw te loolu lépp nag dana am ndax lu sëñ bi ñaan la ci Matlabul Fawzayni ñun nag ñu ngi ñaan nag yàlla bokk ci ñi koy sottil ci ñun mu jaare suñu loxo te loolu lañu yéene président te loolu lañu yéene njabootu Sëñ Tuubaa gépp rawat na Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Sëñ Tuubaa ñëpp rek ñuy ñëw ci màggal gi ñu xam ne Euh, war may war may màggal Cheikh Mouhamadul Fadil tënkoon na ko kon mooy yiw ni ab jullit war a mel rek ndax Serigne Touba moom yeesal rek la fi nekk woon yeesal lislaam sosul lu bees li yonent bi sallallahu alayhi wa euh, jàngale loolu rek la indiwaat yeesal ko waaw waaw kon nañu gën a góorgóorlu bu baax surtout suñu mbokki jigéen ñi ñu gën a sàmm cër yi gën a di euh, muur awra yi di bàyyi xel tamit comme ne ko Cheikh Mouhamadou Bachir moom Cheikh Abdou Khadre waxee ci ñiy ziare ci jumaa yi ñiy bàyyi xel sëriñ bi te wàññi xom yi ak téléphone yi ak sinab yi loolu amul benn njëriñ kon nag ñoo ngi ñaanal sëriñ El Hadji Bousso mi nga xam ne mooy suñu waajur di ko ñaanal tamit sëriñ Sam Bousso mi nga xam ne mooy rakkam di jëwriñam taxaw ko bu baax a baax ñu ngi ko ñaan moom suñu borom euh, guddal ko ñaan suñu waajur yi nga ci kër gi di soxna Bousso Serif soxna maam Awa Bousso soxna Daba ak soxna Njaxat Diop ak suñu soxna yi yëpp rek ak taalibe yi mbokkum taalibe yi fi nekk yëpp kër gi bi nga ñëwee gis nga taxawaay bi fi am yëpp waa daayere bi jógee Dakar Géejawaay euh, mooy soxna euh, maam Soda jiite ko nga xam ne ñoo nekk ci waañ bi ak waa daayira bi yi nga xam ñoo jógee kees bi euh, njabootu Sëñ Laaji Bousso ñoom ñëpp ñu leen di sant bu baax ci taxawaay yëpp di gërëm waa ITV ci seen teewaay ci bis bu tedd bi di ñaan ñu yàlla defal ñu mag bu jàmm ci